gannaaw loolu mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëggee ci mbokk yi jóge bu sori ñëw fii pour defal ñu ay waxtaan ci islaam thème bi teelu ma ko woon gis maa ngi koy doog seen léegi nii muy lu jëm ci wàllu ndaw ci liggéeyal islaam ci liggéeyal risaal islaam loolu nekk lu am solo mbokk bi ñu koy defal tamit nekk ku fes ci daawa bi ñi xam ko bu yàgg muy liggéeyal islaam ba ñëw fii tey pour jot lenn li nga xamante ni mooy risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte boroom xam-xam yi mooy ñi nga xamante ni ñoo fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tamit ñu xam ne ci lu gàtt balaa ñuy jox mbokk bi waxtaan maanaam jotaay yu mel nii nit ñi dañoo war a daw di ko uri ji di ko uti ji di ko jéem a saytu ndaxte mooy jotaay yi gën a riis ci àdduna abu hurayra benn bis dafa mës a ñëw ci marché bi mu ne yéen de ñi ngi nekk di miiras yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ngeen nekk fii rek toog ñi ñépp daal di daw ñëw jubal ci jàkka ji ñu ne ko waaye abu hurayra ana miiras bi ñi miiras yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mi ngi nii xalaq zikri ñi ngi toog di jàngal al quran di jàngalante ay xadis loolu mooy li nga xamante ni moom lañ fi donn yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jéem a meññet moo xamante ni ci lañuy war a witt di ko jël ndaxte loolu bu fekkente ni nit ñi bàyyi nañ ko rek nañ xam ne nit ñaa ngi sànk nit ñaa ngi réer heure bu ñu jëlee mbir mi tamit jox ko ñeneen ñi nga xamante ni tamit mbir mi leerul seen bopp dañuy yokk nit ñi sànkute rek moo tax islaam dañ koy jële ci ñi nga xamante ni ñu am xam-xam ñi nga xamante ni ñuy góorgóorlu ci loolu di ci jéem a dund ndax ñoom buñ ko joxee dinañ ko joxe joxin bu rafet ñi koy jëlit jéem koo jël jëlin bu rafet ñi xam ne ñi bokk ci ñi nga xam ne yàlla day day leen wax ne ñi nga xam dañuy déglu wax topp la ci gën a rafet mbokk mi nekk na mbokk boo xam ne xam nañ ko bu jiitu tey tamit ci daaw bi yàlla na ko yàlla gën a saxal jubal ñu ñu nit ñi mën a teewlu mën a déglu ñu mel ne tamit comme ni nga xamante ni moom la yonent salaasam saxaaba yi bu ngeen salaasam doon wax ak ñoom day mel ne picc moo nekk seen kaw bopp dañ naan tekk ànd ak xelawal ak déglu hazal alam ki ñu koy waxal ki ñuy defal waxtaan bi mooy Saïd Li ñu xam ko bu yàgg ci depuis Géejawaay moom miinuñu bu baax waaye ñun miin nañ ko bu baax parce que boobu ñun ñu ngi gën a nekk ay ndaw nekk commencé tàmbali ci daaw mu jiituñu ci yàlla na ko yàlla gën a saxal te dëgëral hasa wala alam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ñu ngi ziyaare mbokk jullit yi di ci jiital imaam eh, nga xam ne sunu kilifa la ci anam yépp ci mbokk gi ci diine ji ak ci lépp ñu yàgg ko dikk xëy na ziyaar yàlla dogalu ko woon xëy na yàlla mottali ko tey mu nekk sunu première teg tànk ci barab bi di Tiwaawoon Pël ci dogal ko ci yàlla jaarale ko ci Cheikh Lamine ñu ngi koy ñaanal ci loolu yàlla bindal ko ci tiyaaba bu rëy bu baree bari ndax li ñu ñaan yàlla sunu dund mooy Sénégal fépp sunu tànk tegu fi tomb bi ñuy fàttalante tey mooy dawru shabaab fi xidmati risalati lislaam mooy lan mooy rôlu ndaw yi ci liggéey bi ci message bi ci yonent gi nga xam ne moom la yàlla yónni yonent yàlla muhammad jox ko lislaam lan moo ci taxawaayu ndaw yi ñu bëgg a waxtaan ci tomb bi fukki tomb ak ñeent bu fekkee waxtu wi matale na ko su ko matalewul fu mu yem rek ñu sante ko yàlla li ñu fi jot a jële ñu dem góorgóorlu ci su ñëwee ci muqaddima bi mooy laltaayu waxtaan wi mooy danañ gis ne ndaw yi ndaw lu am solo la ci àdduna looloo tax ngeen di gis tey lépp lu noonu yàlla yi di def ci ndaw yi lañ koy jaarale lépp loo jël tey ci kaw suuf ci nit ñi lu ñu war a yëngal wala nit ñi lu ñu bëgg mu sax wala mu tasaaroo ci ndaw yi lañ koy jaarale bu ci ndaw yi jàppee loolu samp bu ndaw yi rombee loolu loolu daal di naax saay daal di tasaaroo diine ji nag di lislaam diine la joo xam ne dafa fonk ndaw lu tax yàlla mësta yónni yonent mu nekk màgget ci risaala yépp nag jëlal ibrahim lan nga dégg ñuy alxuraan di nettali sami'na fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim lan la yàlla wax fatan as cam jëlal yaxya jëlal isa yàlla nee na jox naa ko risaala fekk mi ngi nekk sabi kon ndaw majmua min attaaqa benn mbooloo boo xam ne mbooloo bu am force la force boobu doole jooju isa wujjihat nahwa al istiqaama wal xayr su fekkente ne jëme nañ ko ci njub ak yiw force boobu day nekk njëriñ doole yooyu nekk ci ndaw yi suñ ko jëlee dajale ko yóbbu ko ci njub yóbbu ko ci lu baax day jural nit ñi jàmm mais xam ngeen déviation boobu moo am tey dañoo jël ndaw yëpp jël seen kàttan yóbbu ko ci sport ñi nekk ay mbër ñu xaaj leen ay groupe est-ce que yéen waate waawoon wala amu leen ci mbër yi am ngeen ok mu ngoog ñi ñu def leen ay mbër ñi ñu def leen ay footballeur ñi ñu def leen ay musicien ñi ñu def leen ay ay ay ay ba ndaw yi yëpp seen mbooloo daal di jeex kuréel gu ci nekk ñu jël ay ndaw séddale leen ko jëmale leen fa waaye bu fekkoon ne tey dañ jël ndaw yooyu yëpp jubal leen ci njub ak yiw kon yajtani al mujtamau minha xayran kasir kon société bi da ciy jële njëriñ bu dul jeex ñaata équipe bu nawetaan moo am ci Sénégal ndax kenn mu ci jumaa ji mën na ko compter kenn mënu ko ndax dafa bëri imagineel équipe yooyu yëpp équipe bu ci nekk bu ñu la dagaloon 4 kilomètres carré nawet ñu ne na nga ko bay ñii jox leen ceeb ñii dugub ñii mboq ñi ñi ñi ñi ñii bu nawet bi jeexee nu muy demee ñaata groupe bu écrit mbër moo am Sénégal ñoo ñëpp bu leen joxoon tool yi ne leen bismillah ak tracteur yeeg tout gis ngeen mais dañ ko utiliser wul fu baax ay ndawang fi suufang fi ndoxang ndoxang fi léppang fi luy jëriñ xeer bi waaye dañ ko orienté wul orienté bu orientation bu baax fan lañ ko yóbbu xoolal nawetaan nawetaan ndaw yi dañ ciy nekk ñaata mois la léegi amatul mois tey jii bu ngeen bu ñu demee stade ci wetu stade bi laa dëkk suñu footballee bu guddi jot dañuy taal projecteur yi démb bi may tëdd tëdd naa marché bi tasagul xoolal ndaw yi bëgg a nekk ci loolu football guddi football bëccëg lan lañ ciy am final benn coupe coupe bi or la wala xaalis la or la wala xaalis la weñ gu ñuul kukk ñu defar ko peinture ko ba mu melax teg ko ñu ne gagné nga ko nga def ci 6 mois après ñu jox la coupe bi nga dem teg ko ñetti fan weñ gi commencé cee saw su sedd bi jeexee weñ gi commencé xuur xoolal xoolal li nga ñàkk 8 mois nga nekk ci terrain bi daw 8 mois ku ko defoon ci tool ba tool bi jeex 8 mois loo ciy jëlee 8 mois nga def ko ci stade. huit mois yi bi mu jeexee jëliwoo ci dara huit mois tey ko defoon ci tool mbokk yi lu ngeen ci xam dana jur njëriñ wala du jur njëriñ kon ndaw yi seen effort dañ koo jubalul ci lu baax buñ ko jubaloon ci lu baax kon yajni al mujtamau minha xayran kathira société bi da ciy jële lu dul jeex ci ay njëriñ waaye wa isa turikat suñ ko bàyyee comme nuñ ko seetaane tey tattajihu nahwa al inhiraaf ñu jublu ci mbon loo gis tey góor ak jigéen ndaw yépp dañoo bon lu dul ku yàlla gërëm ñi ñu ngi sol col yu bon xale yu góor yaa ngi jël seen tube yi takk est-ce que yéen am ngeen am ngeen ci loolu fii wala amu leen ah am na fi egsi na fi tube yi fu ñu koy takk kenn xamul ay góor yu takk ay long-long góor yuy léttu jigéen ñu solul yére kenn xamul dégg ngeen semaine bële ñu ne am na ñeenti maire yu dem ci benn dëj di tox yàmba dégg ngeen lool déggu leen ko dégg ngeen ko ah wala lool dem dëj doy na de doyul doyoon na mais di tox ci dëj bi yàmba ay jigéen lu tax ndax ndaw yi dañ leen orienté wul ci lu baax léegi ñu jàdd jëm ci inhiraaf wa shar ak mbon lan la ñuy concours kan moo gën a bon ku la gën a mën a sol lu bon moom tey la ñuy concours ku la mën a gën a def lu bon ñu ne kii moom mooy pay loolu moo tax léegi nag lu xew kaanat sababan fi dimaari l mujtama wa diyaarihi société bi daal di yàqu foo tourné lu bon ngay gis société bi alku xale yi ndaw yi amatuñu ñu ñu roy ñépp jàdd dëkk bi daal di perte mu des buñ deewee dajeeg yàlla xam nañ lu loolu lu ci mujj kon yéen sama mbokki ndaw yi na ngeen yëg ne da ngeen a am taxawaay da ngeen a am rôle bu rëy pour liggéeyal risaalat al islaam yéen bi yàlla yéen muhammad yéen da ngeen a war a jàpp ci yéen bi ndax mu mën a tegu ci bopp muhammad su ngeen ci jàppee mu tegu su ngeen ci jàppul mu tegu waaye nag in ahsantum ahsantum li anfusikum da nga ci jàpp yëkkati rek pour ne pour pour turu man de jàpp naa ci waaye boo ci jàppee day tegu boo ci jàppul day tegu waaye nag buñ la fa séenee nga jàpp ci kuy lim dañ naan diw de jàpp na ci même boo ci jàppuloo nit dañ la ciy boole kon loolu moo tax ñu war cee bokk ndax xam ngeen ne diina ji li ko indi fii du ñun ñii li ko sàmm ba waxtu wi du nun liñ ci jotloo ñun ñii du ñun li ko sàmm ba waxtu wi ñu toog di ci wax du nun inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun yàllaa ñu bëgg rek bëgg ñu yëngatu ci ngir mu dugal ñu aljanna ëllëg kenn ci ñun deful benn effort pour indi boppam yàlla moo la indi wa kadalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum kon yéen sama mbokki ndaw yi na ngeen yëg ne lislaam da leen a soxla woo da leen a soxla borom baa ngi nettali ay ndaw démb yu taxawoon jàpp ci liggéey bii yàlla ne nahnu naqussu alayka naba'uhum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Sourate Kahf aya 13 14 buur jalla waala mu ne man yàlla subhanahu wa taala maa lay nettali xabaar istuwaaru ndaw yooyu jógoon mooy ashabul kahf ndaw yooyu fekkoon seen jamono mel nii yàqu mag ñaa ngi jàdd jigéen ñaa ngi ñàkk kersa ndaw yaa ngi réer ñoom ndaw yooyu ñu taxaw keng yàlla di leen nettali ne innahum ñoom fittiyatun ay jeune lañ ay xale yu góor lan mooy seen sifaat mu ne amanu bi rabbihim dañoo gëmoon seen borom gis ngeen buur yàlla moo seedeel ñooñu ne ñoom dañoo gëmoon ñoom xale yi waxuñu ñun dañoo gëm de mais yàlla borom asamaan ak suuf moo ne ñoom xale yi dañoo gëm kon sikk nekku ci ne dañoo gëm yàlla nee na bañ ma gisee ne dañoo gëm lan laa def wa zidnaahum huda ma yokk leen njub ma yeew wa rabatna ala qulubi ma takk seen xol yi ba mu dëgër këcc ak ngëm ba kenn mënu ko dindi kenn mënut a fexe xale yooyu ba ñu deltu ginnaaw ci imaan bi ñu am loolu moo leen di wan ne bi leen buur bi jàppee ne da leen di rey ñu génn dem ci àll ba mu jaral leen ñu isolé wu bàyyi dëkk bi ak waa dëkk bi ndax seen ngëm ñoom lu ñu wax dañoo taxaw keng ba yàlla yeewee seen xol is qaamu ba ñu taxawee moo tax dafa laaj taxawaay lii nii ngeen gis mu yàqute am fii ci seen dëkk bi yàqute di dem mënut a deltu ginnaaw yéen a taxawul rek nekk ci jàkka yi defe ne bu ngeen jullee ñaan yàlla yàlla jubal leen abadan ñaan du jubal kenn bu doon loolu la yonent bi moo nu gën a mën a nangu ñaan waaye toogul di ñaan maza faala xaraja yad'u zahaba ila taif wa duriba raja ila makka ah wa xaraja ila madin toogul di ñaan pourtant mënoon na ne ci kaaba gi laay nekk maqaama ibrahima ngi nii ndoxum zamzam a ngi nii xajaratul aswad a ngi nii man man yonent bu ma ñaanee yàlla nangu waaye dafa am loo xam ne du réalité ñaan du ko régler fala budda bil istiqama il faut taxaw taxaw taxaw def li nga war a def ñaan mun leen nekk fii di ñaan di xiyaamul leyli ba waa teewoon pël dund sunna abadan génn bu ngeen bëggee loolu da ngeen di génn da ngeen di bàyyi ataaya yi bàyyi gerte gi yetta caaf bi ngeen def min bayt ilal bayt kër par kër tas woote comme ñeneen ñi jimbo damay dem Casamance yenn saa yi ma romb waa jimbo ci marché Zéga Ziguinchor yi ma ne gars yi ma àndaloon taxaw leen ñu taxaw ma leen xool leen ñi fu ñu jógee ñu ne Dakar lu ñuy ut fii ma ñu ne dañuy jaay jimbo ma ne dañuy publicité jimbo même jimbo am na ñu koy liggéeyal. nga dem feneen Tamba fekk fa waa Malboro ñu am ay casquette ay tiset ay moto lu ñuy liggéey dañuy liggéeyal Malboro ana ñuy liggéeyal yàlla Malboro su am na ñu ko liggéeyal yàlla nag ndeysaan amul keroog bi li fees stade bi ñoo ñëpp fekkoon ñu ngi ci liggéey bi fees nañ foofu waaye liggéey bi dafa am ñu ci jàpp rek am ñoo xam ne ñoom si jaade rek lañ dañ leen di lal rek bu ñu paree lemmi leen teg ci biir néegu imaam bu ñu paree ñëwaat lal loolu du diine wallahi loolu du diine diine day taxaw liggéey yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko yàlla yónnee dañ gis léegi misaal yi bu ñu anticiper xale yii yàlla nee na is qaamu ba ñu taxawee fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard li njëkk a déclaré ci seen biir société mooy yàlla mooy ñun suñu borom amuñu beneen borom bu dul yàlla mu leer ku ñu ku war a ñëw ci ñoom xam li ngay fekk si lan nad'u min lan nad'uwa min dunihi ilahan ñun de duñu woo yàlla di ko boole keneen duñ dendele yàlla kenn yàlla rek lu tax ñun buñ jëlee yàlla di ko dendale keneen kon laqad qulna idan satata kon ñun ay fen la ñuy wax képp ku jël yàlla di ko dendale keneen fenkan nga aaya bi ma ko wax xale yi nee nañ bu ñu woowee yàlla dendale keneen isan sototo kon ay fen la ñuy wax yàlla kenn du ko dendaleeg dara laaj naa waa jàkka ji barki dem man leen ku wàcc ku julli woon gee ba pare nga ñëw fekk sa reer bi nga doon war a reere benn góor di ko reere tëdd sa kaw la nga di sa soxna si kii kan la mu ne la kii moo aye tey fekk nga denc façon ngànnaay bu nekk nga denc paaka jaasi silaama douze coups kalachnikov ban ngay jëli kalachnikov ngay jël de gis nga loo koy doyee rey waa ji waaw lu tax daf la daf sa soxna daf la dendaleeg kenn yow mi dendaleeg yàlla keneen nag kon yàlla bu la nee innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna kon war nga ko xam kon dëgg la xoola yow natt ko sa bopp dangaa romb paaka bi romb jaasi bi nga dem ba ci kalashnikov bi pour yow kii doo ko dóor ci tànk de doo ko dóor ci loxo de fan ngay dóor affaire bi ci bopp bi te nag soo ko dóoroon ci bopp bi bopp bi tas da ngay kontaan waaw kontaan lu tax parce que waa ji daf la dendaleeg sa soxna daf la dendaleeg góor nga rey ko góor gi yow mi dendale yàlla keneen nag ba pare nga ne yàlla na la dugal aljanna kon yàlla yaay ne képp ku ma dendaleeg keneen yow sa yaram araamal na aljanna yow safara nga jëm mbokk yi il faut ñu dëgëral marxala tufula tufuliya tamtin marxala tufula التي تسبق مرحلة الصباب دمانا للصلابة الأساس gis ngeen xale yi ndaw ndawaan yi ñi ci biir jàkk ji foog ñu dëgëral seen pas-pas ci yàlla lu tax ndax fondement bi mën a dëgër jumaa ji bi ñu koy tabaxa fondement bi teguñu benn birig rek teg ci leneen li ñaata birig ngeen teg gis ngeen minimum fondement day dem 5 4 3 birig ñu doo koo génne ci kaw kon xale yu ndaw yi liir yi ci kër geek ñu am juróom-ñaari at jëm fukki at danoo war a dugal pas-pasu imaan ci ñoom ba mu ne keng ndax bu ñu génnetee kenn du leen mën a jàddaloo mais xoolal tey Sénégal lan moo tax woote yu bari lan moo tax mbooloo yu bari lu tax ku woote xale yi wuyu ji la parce que amuñu amuñu amuñu ak pas-pas bu baax fondement bi dëgërul fondement bi dëgërul sànq dama toog ak benn xale di seetaan télé ba ci yàgg am ñu génn mu ne ñàkk jom ñàkk jom xoolal ñu bon ñi gis nga lu tax parce que am na lu tuuti lu ñu def ci moom kër kii laa yendu doomam bu jigéen day ñëw di indi ndox mu ngi ci biti ñun ñu ngi ci biir saal bi mu ne assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah mu dugg sama doom bu ndaw bee ma àndal ne ma xam nga lu bëgg wax mooy kii xam na affaire bi gis nga bu ne ma ni xola affaire yi dafa laaj dafa am lu mu laaj mais buñ bàyyee ni suñu njaboot di nii buñ màggee ay mbër la ñuy nekki parce que dara du nekk ñoom ñi nekk mbër ñi xam nga dox ñu dem nekk mbër lu tax yéen ñi dem leen nekk mbër parce que am na lu nekk ci yéen buñ la waxoon kaa ñu fay la un milliard doo dem milliard un milliard laa wax de xam nga fay guñ ko fi mit nit parce que am na lu nekk ci yow mais ñii dem amul lu nekk ci ñoom ñii ngeen gis yenn saa yi ñuy jël bato yi gaal yi di dugg ci géej yi di dee amul lu nekk ci ñoom il faut ñu former xale yi depuis ndaw yonent alayhi salaatu salaam kañ la tàmbali tabax lan la wax boo amee doom mu commencé di wax commencé di ko wax laa ilaha illa allah di ko ko fawee laa ilaha illa allah lan lay tekki kon il faut ñu sonn ci marxala boobu ndax lan li salabatil asas ndax fondement bi mën a dëgër ne kenn mais bu deful dara ci suñ doom yi nii loo ci gis ñoom ñépp dañuy jàtti yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na marru awlaadakum bis salaa wa hum abnaau sab siniin wadribuhum alayha wa hum abna ashar sinin wa farriqu baynahum fi lmadaji muslim wa gayruhu ki yàlla yónni woon ci ñun nee na su ngeen amee ay doom na ngeen leen yar ci julli bu ñu amee juróom-ñaari at amee juróom-ñaari at na nga yar say doom ci juróom-ñaari at ñu mën a julli tey lan moo tax jàkka ji day julli ay pa ay pa tëdd ci seen kër yi duñ julli si lu tax lu tax jàkka ji du fees suba fajar du fees tisbaar du fees takusaan du fees timis du fees gee vendredi mu fees del tabaski korite mu fees del ñi julli si vendredi xanaa ñoom dëkkuñu ci koñ bi lu tax fajar gi jàkka ji du fees benn yahud dafa musa wax benn benn jullit Palestine ni ko yéen fekk jullit bi naan ko bañ jàpp leen jamono ngi ñëw dinañ leen rey mu ne ko du léegi de mu ne ko lu tax du nekk du léegi mu ne ko damaa xam ne du léegi rek mu ne ko kon kañ la mu ne ko bis bu ngeen jullee fajar comme ni ngeen di jullee vendredi dañu xam ne di ngeen ñu duma bis bu ngeen jullee fajar comme ni ngeen di jullee vendredi mbokk yi ñun ñëpp war nañu laaj suñu bopp ne lu tax vendredi jumaa ji fees suba jaa jumaa ji du fees ana ñi julli si woon vendredi kaw asamaan lañ jóge woon fii jumaa la wala jaakal jumaa la vendredi nu muy def ba ci biti suba gi waa léegi ñooñu ñëwoon vendredi xanaa asamaan lañ jóge woon wala ay kaar ñoo leen fi wàcce voilà loolu mooy wax ji yëg ne man àjjuma waruma tardé waaye fajar yaa ngi tëdd di nelaw tisbaar yaa ngi nelaw takkusaan yaa ngi nelaw timis ya te vendredi nga gaaw tabaski nga gaaw korite nga gaaw sangu sol lépp loo amoon mu jaral la sax ñëw yére yu bees dem ci kanam jumaa ji taxaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yar leen seen doom julli wahum abnaau saba sinin bu ñu amee juróom-ñaari at xale bu ñu yar juróom-ñaari at muy julli mu xam julli lépp xam nu ñuy jullee kooku bu amee ñaar fukki at dootul biddanti jàkk ji chaque jour boobu demee fekk ko fa yonent bi nee na wadribuhum alayha wa hum am na ashara bu ñu lànkee ba ñuy julli ba am fukki at na nga leen dóor kon mooy lan mooy xeexal ak sa doom su bañee julli bu amee fukki at saa yu may eggoon ci tomb bi damay laaj ma ni kenn ku nekk ci ñun fii tey ci biir jumaa ji laaj bi ñëpp laa koy laaj ah ku fi amoon doom muy jàng école jour examen jot muy def primaire la lu muy def examen entrant sixième ak CEP nga yóbbu ko ba école bi muy def jox ko téeméer ne ko classe baa ngi nii bu ñu ubbee nga dugg yëgoo lu dul midi mu wàcc wala ñibbisi ñoo ne la papa damaa tardé ñetti matière nga ni ko lu tax mu ne man daal dama génn doon wër fu may ndékkee rek réer noo koy def doom jooju ku jur fi noo koy def dama laaj dama bëgg ngeen tontu doom jooju ko jur fii noo koy def danga koy dóor bu dee dana def BFM nag mu ñëw ne la papa tardé naa ñeenti matière lu tax dama laal fi ma bàyyi woon rek laa nelaw kenn yeewu ma bu dee ku doon def bac nag xam nga da ngay xeex ak moom parce que mag la imagine léegi nag ku sa doom tardé jàkka fajar loo koy def lu ngeen tontu yéen ngeen nekkee BFM la da ngeen koy dóor ñaari rakk fajar nag ku sa doom tardé fii ñaari rakk fajar noo koy def doo koy def dara allahu akbar pourtant xoolal BFM bi ak COP bi ak bac bi yëpp boo ko boolee ci àdduna ci dunya la bokk te yenent bi nee na rakk tey fajar xayrun min ad-dunya wa ma fiha àdduna tax nga dóor sa doom mais leneen taxul nga dóor yëg yëg yëg de gis ngeen àdduna moo ñu ñor quoi moo tax dañuy xeex xale yi ci affaire àdduna mais mbirum diine kooku doo ko sax yëgal sa yaram est-ce que papa ji sax dina dem fajar jàkk bay dóor doom ji yonente alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen duma xale yi bu ñu amee fukki at bañ a julli waaye bu ñu amee juróom-ñaari at na ngeen taqale seen tëraay bu ñu bokk fu ñu tëdd tawjihaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam li ibnu abbas gis ngeen yonente alayhi salaatu wasalaam moom xale yi bi ñu nekkee ndaw la tàmbali di leen orienté di leen jubanti di jëmbat pas-pas bu dëgër ci xale yooyu xoolal yeneen bi di orienté ibnu abbas ne ko yaa xulaam inni uallimuka kalimaat ihfazillaha yaxfazak ihfazillaha tajidhu tijahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah rawahu muslim yonti yàlla muhammad di jàngal ibnu abbas ne ko yow xale bi kaay ma jàngal la ay baat wattul yàlla yàlla wattu la maanaam foo nekk sa xel na dem ci yàlla xamal ne yàlla mi ngi lay fuuglu xamal ne yaa ngi ànd ak yàlla nang ko wattu mu wattu la booy ñaan bul ñaan kenn ñaanal yàlla booy sàkku ndimbal bul sàkku ndimbal ci kenn sàkkul ndimbal ci yàlla est-ce que ñun sunu doom yi pas-pas bi ñu ngi koy dugal ci ñoom fii di ngay gis bokkaalekat boo xam ne buy bokkaale ji sax day yóbbaale doom ji lenn saa yi buy dee sax day buy dee foofu day doom ji day deewaale xale xale bu ndaw nga gis ñu ko dugal ko ci bokkaale bi mu juddoo lañ ko commencé takkal ay gàllaaj ay lam ñaata liir tey nga gis ñu takkalam ay petaaw ay xaaw ay xarfa fuufa wëñ yu xonq yu weex sa tatatat kooku su màggee mënta am pas-pas bu baax puisque ci bokkaale la judd day màgg di bokkaale lu dul yàlla subhanahu wa taala géndi ko ci loolu ci yërmandeem xoolal yonent bi ale lu mu jàngale ibnu abbas iza saalta fasalillah wa iza staanta fastain billah loolu la yonent jàngal ibnu abbas ba ci aadaabul akl ni ñuy lekkee yonent bi koy jàngal xale yi yonent bi nee na yaa xulaam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik tirmisi yonent bi toog na ci ndab ak xale bi tudd amr xale bi ñëw dugal loxo càmmoñam benn ñaar lekkul ci kanamam ñett bi muy lekk waxul bismillah gis nga erreur yi mu def ni mu bëri yonent bi dafa téye ci loxo càmmoñ bi ne ko yaa xulaam yow xale bi mu siggi xool ko mu ne ko sammillah balaa ngay lekk da ngaa war a tudd yàlla ñun tey boo doon corriger sa doom ji loo koy wax ndax raxasu nga kafa mu ne raxasu naa nga bàyyi bu lekk xoolal yonent bi ko wax sammilla yàlla na njëkk ci lekk gi yaa xulaam sammilla allahu akbar yàlla da nga war a jëmbat ci xale bi yàlla yàlla nekk féppam am na benn xale boo xam daf feebar benn doom mbokk yóbbu ko principal di ko jëlal deret waa ji xam nga xale bu ndaw neer yi day yéex a génn waa ji takk dóor dóor daf lu nekk mënut a jël affaire bi yàgg papa ji dugg ne ko mais ba léegi kéegul xale bi ne ko kii kii tuddul yàlla tuddul yàlla moo tax docteur bi ti ah mu ne waxoo bismillah waxoo bismillah loo gis nga xale boobu dañ ko ko jàngal kooku xam nga ne bu màggee luñ ko dénk mu jub yéen a ngi nii seen réew mi ci ay audit ngeen nekk audit yi lan la ay milliards du jub parce que seen ñii yaruñu leen ci yàlla problème yonent bi bi mu téye loxo xale bi da ko ne sammilla tuddal yàlla wa kul bi yaminik gis nga nga doog a lekke sa loxo ndeyjoor après wa kul mimma yalik lekkal li nekk sa kanam gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ci lekk day jubanti ndaw yi beneen xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sabaatun yuzilluhum allahu yawma alqiyama yawma la zilla illa zilluh minha shaabun nasaa fi ibadatillah yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ëllëg yawma alqiyam ay ndaw a ngi ay nit a ngi nii yoo xam ne yàlla dina leen dugal ci keppaaram bés bi nga xam ne keppaar du am bi yonent bi di lim juróom-ñaari nit ñooñu boole na ci ndaw lu taqoo jaamu yàlla ndaw lu màgg ci jaamu yàlla gis ngeen ndaw lu màgg ci jaamu yàlla ñetteelu xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal soññ ndaw ñi ci ut jabar fii Sénégal lan la ñuy soññ ndaw ñi non bu ngeen nekkee ay ndaw su ngeen bañee mooy yàlla moo da ngeen di ut ay kawas quoi di ko dugal ci seen sac seen pochette parce que le sida là il est très dangereux préréréré ay xale yu ndaw nga leen di utloo ay capote di ko jaay fanweeri dërëm yombal ko yenn saa yi sax duñ ko jaay mais dañ koy maye stade la ñuy organiser ay soirée ku ñëw ñu jox la paquet ba mu fees nga dem ba pare ñu dajale ay góor ak jigéen xoole yonent bi moom orientation bu mu jox ndaw yi yaa maasara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj fa innahu agaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati mu ne fa alayhi bissawm sallallahu alayhi wa sallam fa alayhi bissawm yéen ndaw ñi ñu ci mën a denc soxna denc leen ñi manul lu tax ñuy denc soxna mu ne mooy tax nga mën a sajj sa xef mooy tax nga mën a takk sa tubéy ñu ne ko ñi amul pour takk nag mu ne ñooñu ne ñu dimbali koo woor fa inna lahu wija ndax koor moo leen di aar moo leen di yiir wala indi na solution ci ñi am soxna ak ñi amul waaye fii nan la ñuy def jël ndaw yi di leen orienté ci yu bon di leen organiser ay xumbal di leen organiser ay fuural ay podium ay lamb ay soirée dajale ci xale yu góor ak jigéen indi sàngara indi musique indi kapoot yi ba pare nekk si moytu leen sida loolu lu mun nekke nga indi ay mat indi essence indi almet ah indi tout luy luy wane ne lii mën naa tàkk ba pare nga naan moytu ndiku leen safara safara baaxul de waaw te yow lépp luy taal safara baa ngi nii nga indi ko ixwaan yi yenente alayhi salaatu wasalaam ba tey ci ay jubanteem ndaw ñi nee na laa tas lan tazuula laa tazuula qadama abdin yowma alqiyama xata yusal an arba minha shaabun koo xam ne an shababihi fima abla tirmisi yonente nee na yowma alqiyama bu nit ne cëpp yowma alqiyama ñeent lañ koy njëkkalaat bu njëkk bi mooy ndawam ci lan la ko jeexal sa ndaw bi nga amee 18 ans ba ba ngay am 40 ans sa ndaw googu ci lan nga ko jeexal wala ndeke ndeke ndaw dafa am importance ba dañ koy laaj yow mal xiyaam lan moo lay wan ne ndaw dafa am importance hadis bi su continué woon da ngay dégg an umrihi fii ma afna dund gi ci loo ko jeexal sabab la ñuy njëkke sa ndaw gi ci loo ko jeexal ak a neex tey benn ndaw yàlla ne ko waaye yow sa ndaw ci loo ko jeexal mu ne ko lépp ci yem dama la ko joxoon bi ma nekkee ndaw assababu kulluha daawa lépp dama ko woote ci yoonu yàlla loolu neex na de waaye sa ndaw loo ko jeexal non man bon rappeur laa ci nekkoon quoi moon rap wala gaynde laa ci woon waaw wala bon man mbër laa woon loolu musiba la ku dem ci yàlla yàlla di la laaj sa ndaw ci loo ko jeexal nga naan ko mbër laa woon musiba naaru laay dal na la ñaareelu tomb mbokk yi mooy namazig ani sababi sahaba ndeysaan dañuy ni ay modèle xam nga tey sénégalais yi dañoo amul ñu ñu roy parce que pourquoi wanuñu leen ay modèle yu ñu toppandoo ay tubaab lañ leen woy ay yahud ay nasaraan góor ak jigéen ñuy waxe ni ñooñu di waxe di solo ni ñooñu di sole di doxe ni ñooñu di doxe parce que ñooñu lañ leen wan dañu laaj benn borom xam ne ko mais est-ce que jouer film islam wane ci benn saxaaba daan ne def benn saxaaba ñu ne kii diw la misal ñu jël Umar ñu ne Omar a ngi nii loolu dafa araam mu ne ñi koy araamal ñëpp dañoo feebar mu ne xam ngeen loolu lan la ñu jural mooy sunu ndaw yi au lieu ñu roy Omar ku ñuy rey band yi xoolal tey xale yu góor yi fan la ñuy takk seen tube yi ah fan lañ koy takk waaw loolu ban jullit ci kat ci ban jullit lañ ko royee ci ban saxaaba moo doon def loolu nauzu billah mu ngoog ñàkka woon sunu ndaw yi kan mooy saxaabatul kiraam ñan la sama doom bu mag bële dama leen daan tegal ay film bu ñu nekkee xale film film le message le messager xam ngeen le messager Hamza lañ ciy wone ñu ne kii mooy Hamza noonu muy kaalawoo dem jël jaaseem di rëbbi léegi nag suñ ko wanee ci fas bi muy ñëw ci le message da ngay dégg kii firi film bi naan Hamza ngoog kii mooy Hamza sama doom bi xam nga Mouhamed la tudd mu ne ma papa yow lu tax tuddee woo ma Hamza nga may tuddee Mouhamed man Hamza laa bëgg waaye kii xool Hamza nu mu jàmbaare ana Mouhamed lan la def xoolal parce que xam nga lu tax mu wax loolu parce que kii la gis loolu moo tax ñu war a wan xale yi sahaaba yi ñooy ñan ba ñu mun leen a roy ñu leen koy waxtaanal dañu xam ñii ñan la ñu am ñu ñuy toppandoo mais bu fekkee télé bi chaque jour vandaam la ñuy gis ah gaa yooyu la ñuy gis noonu la ñuy solo ni ñooñu di solo la ñuy solo ni ñooñu di waxee la ñuy waxee ni ñooñu di doxee la ñuy doxee nauzu billah jël leen ali ibnu abi talib ndax am na ci ndaw yi ku ko gën a jàmbaare amul xoolal sacrifice bi réy bi ali yi def bisu gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi yàlla xamal na ko ne bul fanaan sa kër boo fanaanee dañ lay rey yonent bi génn waaw mën ngaa gis ñu ne nit bul fanaan sa kër ndax gaa yaa ngi ñëw dan lay rey benn waaye ñëw ne man bàyyil ma fanaan sa kër waxuma ma fanaan sa kër waaye ma tëdd sa kawlal waxuma ma fanaan ma tëdd sa kawlal waaye ma sàngoo sa mbàjj te kii lal bi kuñ fi fekk buñ fi fekkee borom dañ koy rey yow nga ñëw remplacer fa boromam kooku kan moo kan kan moo ñeme ne kooku ñemewul ah lu tax kooku ñeme am fit boobu parce que dañ ko yar ba mu am pas-pas bu wér këng xam ne dund ak dee moo yem mais li am importance mooy booy dee nga dee ci yoonu yàlla mu ne yonent bi demal maay fanaan ci kaw lal bi yonent bi ne ko boo xëyee bagage yi ñu ma dénkoon a ngi nii ku nekk mu wax ko bagage yi mu moom mu delloo ko ko kan moo ko gën a jàmbaare laylatal hijriya ilal madina xam ngeen jamono yooyu aliou di def loolu ali yin di def loolu ñaataat la amoon isrina sana ñaar fukki at muy fanaan ci lalu yonent bi te boobu waa màkk ñu ngi daas seeni jaasi jox ko ak ay ponkal ne dóor leen ko yonent bi benn yoon mu dee deraatam deretam tasaaroo ci biir gox bi su ko defee buñ nee ku ko rey ñu ne ñëpp a ko rey duñ mun a jàpp kenn ndax ñëpp la ñuy wax ali ya ngi am ñaar fukki at ne yonent bi maam naay fanaan sa kawlal mu dem fanaan ci kawlalu yonent bi yéefu yéeféer yi ñëw ubbi kër gi dugg ubbi buntu bi fekk ko mu ngi sàng mbàjj bi ñu ne ko pëkk pëkk mu jóg taxaw génn jaaseem ne leen lan la ñu ne ko Muhammad la ñuy seet mu ne nekk fi maa fi nekk génn jaaseem ñu ne ko ñun soxlawul la waaw anamu gisuñu ko gisuma ko kon ñooñu la ñu war a wax sunu ndaw yi ñaareel mooy Muaz ibnu Jabal yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko yónni ca Yaman qaadiyan muy àtte ji wa umruhu isruna sana qaadi yonent bi tuubloo waa yaman waa yaman nekk ay jullit soxla kan moo leen di àtte kan mooy nekk seen imaam ku leen di teg ci yoon yonent boole ñoo kenn mu dem nekk sunu lépp yonent bi ne ana muaz allahu akbar loolu mooy war ne formation bi jàll na ana muaz mu ne maa ngi nii mu ne ko demal parce que ta yar na leen yar na leen formé na leen jàngal na leen ñun tey sa gaa yaa ngi ni koo fi yóbbu ko am waxuma kii ñaar fukki àllam fii koo fi yóbbu ko am 40 ans bu demee ay penalty rek lay tiire day dem rek yor jaaseem ñëpp mu dugal leen safara ñibbisi daal ne rey naa ñëpp fala yonent ne uma onze demal parce que dafa am mbir mi dafa am lu mu laaj dafa am fu ñu war a tàmbalee kooku ñaar ñi ma wax ay ji ay góor lañ nañ ñëw ci jigéen ñi xoolal asma keroog ba yonent bi gàddaayee bintu abubakar li njëkk a def mooy ba ñu demee kër yonent bi fekk ñu ko fa kër abubakar lañ jubal ñëw fëgg bunt bi asma moo ubbi ñu ne ko ana sa baay gisuma ko fu mu dem xaw ma ko ku mu àndal xaw ma ko abu jahil pes ko ba nopp bi dagg xanaa dafa lu mu waroon yuuxu ne ko xam naa ko jaar nañ nii moom dafa bàyyi bañ dem mu faj noppi bi ba mu dëgër daal di togg ba mu ñor mu yekk def ci mbuus jël ndox def ci mbuus daal di koy yenu topp lënd mi màkk jëm xaaru xiraa di ko yóbbul yonente bi ak abou bakar ba mu yegg see yonente bi def ko zaatu ni tàqay ni borom ñaari mbuus yi for affaire bi dafa am lu mu laaj formation la laaj est ce que ñun toll nañ foofu ci sunu doom yi fii ku fi police doon wër sa sa papa sa doom moo naan mu ngi ci douche bi dafa daw mu ngi fii mu ngi fii ci ron lal gi xaar leen ko mu ngi mu ngi fii yenn saa yi sax mu yëkkati ron lal gi di xëcc sa tànk papa génnal wuyu ñii parce que parce que jàngaluñu leen dara formé wuñu leen il faut am affaire dafa am lu mu laaj liggéeyu lislaam la dafa am lu mu laaj dafa laaj yar yar doom yi asma a ngi nii di def rôle bu rëy bu mag a mag ci gàddaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moog rakama bu tudd abdallah di indil yonente bi ca xaaru xira lekk ak naan jamono yooyu mbokk yi xam ngeen asma ñaata at la am salaasa wa isruna sana ñaar fukki at ak ñett la asma am ñaar fukki at ak ñett la am jël leen màkka septième siècle nan la waroon mel xaaru xiraa ci jamono joo xam ne ñu ngi wër yonent bi ku ko indi muy dund wala mu dee dinañ la may téeméeri gëléem xay yan aw maytan ak ni mu dangereux xale bu jigéen bii xool xale bu jigéen bi bu am ñaar fukki at ak ñett di génn lëndëm 4 3 heures du matin 2 heures du matin yenu ay lekk ak ndox di karaj-karaj yi ci montagne yi màkk jëm xaaru xiraa mbokk yi liggéey bi du waxu kese liggéey bi du waxu kese de liggéey bi liggéey liggéey la lii dafa am lu mu laaj ak distance bi ñaata kilomètre la ci lëndëm googu ay kilomètre waaw ñeenti kilomètre la ñeenti kilomètre la ñeenti kilomètre xale bu jigéen bi di ko dox ak tànkam gàddu lekk gàddu naan am ñaar fekki at ak ñett ci lëndëm googu foo xam ne xamul fan lay jaar di tëñëx tëñëxi ba yegg rakkam bu tudd Abdallah moo yor xar yi bu bàyyee ba mu dem mu jaar ci pour lan xar yi daal di maasale et puis kan moo leen jàngal lii def leen ko lii nga xam ne tey borom juróom fukki at yi sax xamat duñ ko xalaat ñoom kan moo leen jàngal loolu c'est parce que liggéey bi dafa am lu mu laaj doomu ndeyee kon ñooñu ay modèle lañ ñaar ñi góor lañ kenn ki jigéen la ñetteelu tomb ñu ñëw waaqi u shabab tey réalité bi nga xam ne moom la jeunes yi di dund tey ci Sénégal danañ gis ne jeunes yi ci Sénégal ndaw yi ci gox yëpp ñaari xaaj kese lañ sinfun yausu bila hadaf wa sinfun lahu ahdaaf waaye dunyawiya xaalisa jeunes yi ñaari groupe kese lañ tey ci Sénégal ci gox yëpp nag ah xaw ma Tiwaawan Pël de ndax maa ngi fi doog a ñëw tey am na ci ñoo xam ne dañuy dund amuñu benn jubluwaay amuñu jubluwaay amuñu hadaf ñoom dañuy xëy rek di wëndëng wëndëngi dara nekkul seen bopp loolu caayin booy taal nañ caayin bi non xam naa xaar ñu dem dëkk quoi rak tak door ko mu daanu loolu mooy seen bopp waaw ataaya da mu mën ak seen bopp buñ xëyee naan ko jeex na amuñu jubluwaay dara waaw amuñu benn bopp takk seen tubé yi seen xotti taat yi kiris karas ko ut benn mbax na dëngal ko naan benn kaas ataaya pare nañ ci bu nu wëndëngee ba deux heures ñoo la mère waaw bool bi fu mu toll waaye amul lu fa des waaw mais pas moo foofu benn onde ma dóor benn Marlboro loolu mooy seen bopp loolu la ñooñu amuñu benn jubluwaay ci xale yu góor yu jigéen yi nag taxawaalu bu dee xale bu jigéen bi na am benn téeméer bu ñu ko sarax mu dem marché ajjuma marché lan seen fii seen luuma lan la marché jeudi mu dem jënd ko fa benn bodi tubaab bu dee juróom fukki at mu ñëw bàcc ko def ci bleu bu ngoonee mu sol ko di jommal xale yu góor yi war mu ñu naan ko waaye eh booy ñoo la lalal mu naan lalli naa amuñu jubluwaay beneen kuréel bi am nañ jubluwaay lahu ahdaaf ñooñu am nañ jubluwaay de waaye dunyawiya faqat adduna rek almaal mais booy xaalis waaw barsak barza wala barsak gis nga alal rek booy moonin bi booy foog ma nekk millionnaire booy foog ma am xoolal ñeneen ñi siiw bëgg a siiw non foog ma siiw moo tax loo gis ñii dugg ci ay góor jigéen ñii dugg ci ay ñii dugg ci ñii dugg ci ku nekk dugg ci lu bon lu tax bëgg a siiw ñeneen ñi man sab bëgg ndomba tànk benn yeneen ndaw yi bëgg ndomba tànk ñi alal ñi bëgg siiw ñi bëgg ndomba tànk ku nekk di daw ci ginnaaw loolu ñii am nañ jubluwaay waaye àdduna kese la ñee moom amuñu dara ci jubluwaay léegi nag lii lan moo ko waral mooy riyaabul amal mooy riyaabul amal mébét bu baax lañu amul aw daafuhu wala seeni mébét baaxul wa shuur bil yaas dañoo yëg ne aussi ñoom mënatuñu dara ci àdduna bi quoi dëkk bi fi mu toll ci ci ñàkk liggéey comme xëy nga yow jàng nga ba yegg fi nga war a jàng amoo liggéey rek moom li fi des mooy ma naan ataaya xoolal jéemuñu xeex ak seen bakkan jéemuñu tuur seen ñaq jéemuñu nekk ay nit non man lan ngeen bëggati man da ngeen ma ne woon naa jàng jàng naa maa ngi ni am naa licence mais léegi léegi loo bëgg mais damay tëdd gis nga day tëdd parce que yow jéemoo xeex ak lii nekk ci sa kanam jéemoo ko fee dindi ndeysaan dimanche passé maa ngi woon Canaba waxtaan bi ma ko doon def dafa am benn borom xam-xam bu dëkk Japon dafa jógee japonais dañ ko yónni ne ko demal Allemagne nga jàngi mu dem dem Allemagne futteeku jàngi moo ko yóbboon mu sol tëni dugg ci usine bi ñuy liggéeyee oto yi day jàngi wàcc dem ci usine bi jàngi wàcc dem ci usine bi mu dem jàng di di liggéey di jàng di liggéey ba bi mu ñibbee Japon oto bi gën a usine bi gën a rëy bi defar tey oto ci àdduna bi moom moo ko defar léegi nag journaliste yi ñëw wër ku ne ko loo mën a defee lii noo mën a defaree lii yow mu ne bi ma demee Allemagne benn tableau rek laa tegoon sama kanam mooy kullu shay'in yahunu lépp sama kanam dafa doyadi lu dul liggéeyal Japon Japon rek laa gëmoon gëmuma lenn lu dul Japon su ma xiifee baax na su ma sanguwul baax na su ma tilimee baax na bu ma feebaree baax na na Japon jóg ci kaw rek lépp luñ ma def mu metti sama yoon nekku ci dama bëgg japonais yi sigi ndeysaan ma ne aka neexoon jullit yi gëm ne kullu shay'in yahunu illa al islam aka neexoon loolu aka neexoon jullit ñi jëg lislaam teg seen kaw doq daan ne lépp lu dul lislaam rek ndeysaan buñ ma ko defee baax na waaye da ngay gis gars yi ndeysaan tey ay nit ñooy ñëw xoola gëm dara yëkkati ko ci kaw dafa am benn waaye bu defar usine café xam ngeen café Côte d'Ivoire lañ koy bayee waa ji États-Unis la nekk de moom da doon jaay café nee na sama maam bi muy jël café gi Côte d'Ivoire di ko jaay lenn la bind benn tableau la bind fi muy toog bu xëy di jàkkaarloo ak moom mooy lan mooy damaa bëgg àdduna bi ku fi naanati café rek na génn ci sama usine bii xam ngeen waa jooju tey ay avion la yor avion yi ñoo yóbbu café bi ci àdduna bi tey ñëpp a ngi naan café wala gis ngeen te pourtant xoolal amul ay tool de mais fuñ ko bayee ci àdduna bi day dem jënd ko bal sax léegi tool yépp moo ko moom to jënd na tool yee jënd liggéeykat yi ut ay usine fu nekk ay usine ama nga fa léegi jaratul sax café bi ñu koy jënde Côte d'Ivoire di ko yóbbu États-Unis di ko defar non fi ñu ko jënde lañ koy defaree tasaare ko ci àdduna bi nit ñi dem naa nit xoolal ñii suñu amee ni tolluwaay ci alalu àdduna ñun jullit yi keroog bi saxaaba yi gëmee gëm-gëm gi islam bi dafa tasaaro loolu moo tax tey ñun ñu nekk ay jullit waaye ñun laa wax ba ñu nekkee ay jullit ba léegi nekk ay sunit benn misaal rek laa joxe fii ci biir jumaa ji su ma tàmbali woon ndey joor ci mbokk bi ñu jox ko micro bi ñu ne ko yow bi nga nekkee sunit ba léegi ñaata nit nga dugal ci sunna ñu continuer ñu continuer continuer ba yegg si fii acca ku nekk fi nga toog tontul bi nga nekkee sunnit ba léegi ñaata nit nga dugal di nga gis koo xam ne am na ci fanweeri waaye kay macha allah amul njëriñ amul benn njëriñ amul benn njëriñ yow rek nga nekk sunnit rek nga toog ak bu doon loolu kay yonent bi mënoon naa nekk sunnit rek mu toog Abubakar ñëw mu ne ko ah bas ma egsi nga mu ne ko macha allah mu ne ko wal kër ga nga toog allahu akbar waaye xoolal Abubakar keroog bi mu ñëwee yonent bi tàllal loxo mu teg mu tudd baatu seede yi mu ne yonent bi lan moom ma war yonent bi ne ko li ma war mu génn premier jour mu indi Ousmane ibnu Affan yonent kii day tuub deuxième jour mu indi Bilal ibnu Rabah troisième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam quatrième jour mu indi Ousmane ibnu Mazoun cinquième jour mu indi Saad ibnu Abi Waqas sept jours bis bu nekk Aboubacar day indi benn ponkal na yonante kenn ngi nii ñun nag ñun nag acca jigéen ñi dama nga laaj jigéen ñi ne leen yow bi nga muuroo ba léegi ñaata nit nga dugal sunna dama nga laaj ko ñaataan nga def ci sunna mu ne fukki at nga ne ko baaw fukki at yi ñaata nit nga ci indi góor ñi acca ku nekk bi nga nekkee sunnit ba léegi ñaata nit nga indi am na koo xam ne ay doom sax mënu koo indi am na ñoo xam ne seen jabar sax mënu koo indi ndeysaan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah sahaaba yi bis bu nekk ñu indi ay ponkal ji indi li yonent bi lii moo tasaare lislaam lii mooy daw dañoo xamoon seen rôle sahaaba yi war nañ ay fas dawal ko ba ci géej gi ñu waat ci yàlla ne bu leen leeroon ne ginnaaw géej gi ay nit a ngi fi dinañ xuus géej gi yóbbu diine ci loolu mooy seen rôle ñoom xamoon nañ ko ixwatal iman tey ñun sunuy ndaw mooy lan al inhiraaf fil fikr xalaatin yu bon moo leen dugg awi suluk wala ci seen comportement comportement yu bon wala nga boole ñaar yépp xalaat yi baaxuñu parce que pas-pas bi baaxul li ñuy jàng baaxul comportement yi baaxul parce que éducation bi baaxul parce que loolu leen leen yare lan lañ leen jàngal mooy seen nit golo la nit ci golo la jóge ku gëm ne sa maam golo la doo liggéey lu baax wala ku gëm ne sa maam golo la golo lu muy liggéey golo balaa ngay xam ne baaxul nga nga def tool mboq ba mu ñor nga dugal ko ci dem ñibbi li nga xam ne wala nga doolu ko dugal ko sa toolu gerte wala xaal li nga xam ne golo baaxul léegi nag ku gëm ne sa maam golo la ndax di nga def ci kaw suuf lu baax moo tax lépp inxiraaf fil fikri aw suluk aw fiihima maan wala ñoom ñaar ñëpp boo leen boolee tey baaxul léegi loolu lan la leen jur ba xalaatin bi baaxul comportement yi baaxul adda ila irtikaabil mazalim foo gis tooñ tooñ moo fa nekk bon moo fa nekk fi xaqil islam nga gis ñu nekk ay julit loolu ngay dégg ci rajo bi tey ay jigéen taxaw naan waaw islam dañuy noot dañuy toroxal jigéen ñi gis nga taalibe yi sax da ngay dégg ñu islam day yelwaanloo taali ñuy tooñ l'islam parce que l'islam yelloo yelwaanloowul kenn l'islam bi ngay takk jabar est ce que da nga ne woon ci l'islam laa koy takk da ngaa def seeti ku la neex nga takk bi ngay dëkk sa kër da ngaa def seet fu la neex nga dëkk sa yoon léegi nag buñ bu dara desul nag lu dul léegi ñu war a génnee résultat résultat bi génnul ñu ne l'islam la lis tooñ nañ l'islam bu amee ku sàcc léegi daal ci jàkka ji ñu ne waaw jullit yi la gis nga tey loolu la tubaab yi def fu ñu def lu bon rek ñu ne jullit yi la soo dee l'islamiste ñoom la des fondamentalistes soo dee terroristes di tooñ l'islam ci loo xamante ne l'islam fekkewul yëgul loolu moo am tey ci sunu dëkk bi débat boo jël l'islam la ñuy critiquer te pourtant su fekkee beneen wàll bi dañ naan dëkk bi du dëkku l'islam waaye bu dara desul lu dul résultat amul ñu ne l'islam loolu moo tax ñuy tooñ l'islam guddeeg bëccëg fii xaqil abriyaar ixwaan yi ñun ñëpp dañu war a taxawaat pour liggéey pour xeetu xale yu góor yu mel nii wala jullit yu mel nii jóge fi mooy lan ifsaadul xayaati al ijtimaai société bi tey lépp a yàqu ci biir ak ci biti déglu leen rajo yi rek balaa ngeen xam ne réew mi dafa yàqu ngeen déglu démb laa déglu benn xale bu jigéen ci oto bi ma nekkoon tës mu naan sama baab xaw ma fu mu nekk dégg naa dafa violé woon sama yaay ma juddu ci boo déggee baat bi dafa mel ne dañ ma dóor benn koras xale bu jigéen de journaliste bi ne ko ah mu ne waa am loolu de lañu wax nee nañ dafa violé woon sama yaay sama pap inna lillahi xoolal foofu lañ doon saa yoo xëyee di déglu rajo bi musiba ngay dégg société bi lépp a yàqu dafa pourri guddeeg bëcc dara dara dara dara baaxu fi parce que lu tax nit ñi duñu ay jullit irtikaabil jaraim xoolal nit ñi reyee nit ñi léegi nit ñi dañuy dem ba pale xoolal reewande gi di sottee ko ay essence di taal sa bopp ku mer xaru waaw fan yi rek am na am na ku dem ba pale jël essence xaw ma pétrole sottee ku taal boppam ñii di koroj seen bopp di takk seen bopp ay buum ci baat ñii di jam seen bopp xale bu jigéen buñ bëggoon takk waa ji takku la nga xaru benn waaye bu xale bu jigéen bi bàyyi mu xaru xoolal reewande gii rek ku sa papa ne mu xaru ku sa yaay ne bul génn bul baali mu xaru am na benn artiste buy ñëw benn dëkk benn xale bu jigéen ne leen papam ne ko ba nga génn kër gi mu xaru artiste bi dem jaale ji nag ñëw ñëpp uy def laa bëggoon yow rek la doon nooy gis nga yow yaa tax mu dee bëgg artiste dama koy seeti ñu ne déedéet mu xaru laa ilaha illallah e waay Sénégal yéenay ñan ana ñi ngeen di tiitaroo ana kilifa diine yi ngeen di tiitaroo ah ku gëm alaaji Malick dina dina xaru ndax ndax waykat musicien ku gëm sëñ Touba dina xaru ndax musicien ku gëm Ibrahima Niass dina xaru ndax musicien bu fekkee loolu lu ñuy wax dëgg la ku ànd ak nit ñu baax ñi di nga xaru ndax loolu musique soirée doo dem nga xaru naan ay comprimé dañ xoolaat ñun ñooy ñan waaw wala ñu daan benn mbër mu xaru ñu daan sa mbër nga xaru wallahi jazakallah daan sa mbër nga xaru waaw affaire bi ñu ne waa ji daal daf ko daf ko fi bëgg dañoo daan kii rek mu dee lay la nga dégg ñu ne woy waa ji ñëw bu ñu amee ñetti fan mbër mi ñëw génne dënn bi ni nii nag ñëw ne day jaales nii ñëw naan nii waaw allahu akbar ñëpp ñëw nag ñu génne ko tele ñu ne waaw moom de day saan dem na jaale ji ku gore la ndax benn fan sam moo dee ndeysaan ndeysaan doo dégg mukk borom kër goo xam ne doomam dafa tardé fajar mu dee doo dégg mukk koo xam ne dafa yee jabaram jógal julli mu bañ mu dee benn borom xam-xam nee na ndeysaan ci thème bi ma doon def dimanche mu ne iza raaytul munkara falan astatiu an ughayirahu abulu daman laa ilaha illa iza raaytul munkara mu ne bu ma gisee lu bon falan astatiu an ughayirahu ma xool lu bon li mënuma koo dindi mu ne damay saw deret su ma demee wan ak deret laay sam ñun fan lan toll ci loolu mbokk yi ñeenteelu tomb mooy addawru al murtaqab li sabab mooy ndaw yi fan lañ leen di xaar lan lañ bëgg ci ñoom borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baad يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم برم بنانا في سورة التوبة من way gëm yàlla yu góor yi ak way gëm yàlla yu jigéen yi baaduhum awliyaau baad lenn ci ñoom dañoo war a ànd allié ak ñeneen ñi maanaam góor ñi ak jigéen ñi dañoo war a ànd jàppante ci liggéey bii muy liggéeyu lislaam na ji jaar ndeyjoor ñi jaar càmmoñ góor ak jigéen lan mooy seen métier yaamuruna bil maaruf di digle lu baax wa yanhawna anil munkar di tere lu bon est-ce que loolu am na tey te am na ñoo xam ne seen jabar sax bu leen ne mbokk yi dañu am tur xaraam boo ma koy waxati ma lay fase ci biir kër gi pourtant li alxuraan la góor ñi ni ñu war a digle lu baax noonu la war a jigéen ñi wala ma deraat ma liiraat wal muminuuna wal muminaat wala lo- boobu du jigéen baaduhum awliyaau baad yaamuruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar bu fekkee lislaam góor kese la jigéen ñi bokkuñu ci ana sahabatul kiram jigéen ñi dañ doon liggéey ñaata yoon ngeen dégg ñu ne leen jigéen ñi war nañ ay fas sax renforcer ay xare ah ñun dégguñu diine loo ma tax diine ji mel nii léegi lii lan la ñuy jural ñu dem ba yegg gestu waa na jigéen ñi ñu ne ñoom ñëwaguñ ñu delluwaat jëleen jëlee à zéro delluwaat tardé waat rek bu fekkoon ne bi ngay dem ànd nga ak sa waa kër boo yeggee toog da ngay egsi rek toog waaye da ngay dem ba yegg gestu waaw ana soxna si ak xale yi ñu ne ñi ngi kër ga nga delluwaat kon kay yóbbaale leen rek góor ñi ak jigéen ñi ñoo war a ànd ci toolu lislaam liggéey ci digle lu baax tere lu bon même ci julli wa yuqimuna as-salaat wa yutuuna az-zakaat wa yutiiuna allah wa rasulahu yàlla mu ne ñooñu mbooloo yépp góor ñi jigéen ñi ci julli yi ci joxe azaka ci topp yàlla topp yonent yàlla mu ne ñii sa yarhamuhumullah yàlla dina leen yërëm mu ne yantaziru min as-sabab al-muslim li ñuy xaar ci xale yi ci jullit yi li ñuy xaar ci ndaw yi dëkk teewoon pël ndaw yi dund alquran ak sunna ñu leen di xaar mooy xidmatul islam bi kulli ixlaasin wa amaan min kulli mawqifihi xam nga lu ñuy xaar ci yéen mooy ngeen islamiser teewoon pël li ñuy xaar ci yéen mooy xidmatul islam liggéeyal islam mbooloo moo dem am na ñuy liggéeyal day gis sax kuy liggéeyal tarixaam ndeysaan ba waa ji ñu tuddee ko bàyyi faalu tarix bàyyi faalu diw man maay bàyyi faalu diw ana bàyyi faalu lislaam yi ana ñu ci jàkka ji ana bàyyi faalu lislaam yi waaw kenn kenn rek la ndeysaan ñaar ñett ah kon ñii juróom ñii yëkkati seen loxo ñoom ñooy ñii ñëpp ñii dong ñoo fi bëgg lislaam yéen ñeneen yëkkatiwul seen loxo yéen bokk leen ci ana bay ana bay faalu islaam yi ana ñu dañu loolu la ñu war a nekk ay nit soldaar yoo xam ne lislaam la ñu gëm moom la ñuy liggéeyal guddi ak bëccëg su lislaam soxlaawee da benn jigéen bu tudd Zeynab Ghazali ci Égypte ndeysaan bi ko bi muy am borom kër dana borom kër gi yaay nekk mos ngaa gis góor guy nekk ñaareel mu ne ko loolu mooy la mu ne ko damaa am jëkkër ba pare boobu ngay nekk ñaareel nag nga nangu ñu takk sëy bi kooku ne ko loolu mënu ne yow dégg naa mbokk yi ne amoo jëkkër mu ne ko islam mooy sama jëkkër ju njëkk su ma soxlaawee bis bu ayee yow doo ayee perte nga nangu nga loolu bis bu ma diine ji soxlaawee conférence def lu ma war a def ci l'islam doo ma fay ci kër gi soo d'accord ñu signé sëy bi takk ko waa ji daal di d'accord xoolal ndaw soosu dafa bind benn téere ñu tee ko ayaamun min xayaati ci jigéen ñi ñu dugal ci kaso la bokk dóor ko dóor yu miiti yoo xam ne mosuñu ko dóor nit mbugal ko ci kaso ba mu xëy gént gis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon affaire bi liggéey la du waxu kese yi ñuy def nii dafa yomb te fekk bàyyiwuñ ko nii rek la ñuy mel foog ñu futteeku liggéeyal diine ji ni ko saxaaba yi defee woon saxaaba yi dañoo tasaaroo ci àdduna da ngay dem Inde ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem Iran ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem Iraq ñu wan la bàmmeelu saxaaba nga dem Afghanistan ñu wan la partout nga dem ba Égypte ñu wan la bàmmeelu saxaaba ba Mauritanie ñu lay woon bàmmeelu saxaaba yi dégg nga ñu ne Ousmane Ibn Affan ñëw na Afrique Ousmane ah fan la ñëw ñëw na Éthiopie doomu yonent bi ñëw na Afrique fan la ñëw Éthiopie Rokhaya voilà pour lan pour liggéeyal l'islam bu fekkee doomu yonent bi ñëw na Afrique ñun ñun fii kan moo fi dem Casamance ndax l'islam année bi ma njëkkoo tàggoo ne damay dem Casamance benn oustaz mu ne ma yow da ngay xaru soo fa deewee wallahi alazim da ngaa xaru ndax yaa gën a tey ne rewér yaa am dañ lay rey su fekkee ñun dañuy wax ne Dakar rek fii rek nañ daaw fii quoi di jàkk te ba sa daaw tamit da ngay toog naan ataay ba tàkkusaan nga ñëw ca jàkka ji toog loolu mooy daaw daaw yow yaay fekk nit ñi kenn du la fekk si ay génn sa kër bàyyi sa soxna dem dugg àll bi saxaaba yi loolu lañ doon def Tufayli ibnu Amrin bi mu jógee Daws ñëw ci yonent bi tuub mu ne yonent bi yónni ma bis bi mu tuubee wax ju rëy la wax yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihimu zina farsilni ilayhim yonent dëkk ba ma bàyyi ko muy daws ñi ngay naan sàngara ñi ngay njaaloo ñi ngi def lu bon yónni ma ma dem génne yonent na ko demal mu dem gis ngeen bi muy ñëwaale lan la indaale abu hurayra tufaylu moo ko dugal ci lislaam abu hurayra bi ñuy wax tey moo ëpp lu mu mokkal ci xadisu yonent bi 5374 xadis abu hurayra moomu tufaylu ibnu amr moo ko dugal ci diine waaw ah ñun nag kan lañ dugal ñun anan yàlla yërëm kon li ñuy xaar ci ndaw yi mooy loolu liggéeyal lislaam imaamu jàkka ji li ñuy xaar ci moom dawrul imaam ndeysaan imaam moo am liggéey bu rëy ndax mooy jiite nit ñi ci lan lay jiite nit ñi ci ponk yi gën a rëy ci ponk lislaam yi mooy julli isan yajibu alayhi an yu addi dawrahu li ko war mooy mu indi rulam fi masjidihi ci jàkkaam wa qariyatihi ak ci dëkk bi mu dëkk fii wa madinatihi ak ci ville bi mu dëkk imaamatun wa tawjihaat wa irshadaat nekk imaam di orienté di jubal loolu moo war imaam imaam li ko yàlla may may ko kenn waaw imaam li ko yàlla may may ko kenn ci mu war a jubanti nit ñi bu yëg ne am na taraanga bu rëy bu yàlla teg ci loxoom moom imaam mooy lan la an yahdiyaka allahu bi rajulin wahid xayrun laka min umrin naam nga xoolal nga fexe ba benn nit baax imaam bu jullee suba dafa war a fàttali imaam bu jullee tisbaar dafa war a fàttali imaam bu jullee takusaan dafa war a fàttali imaam bu jullee timis dafa war a fàttali imaam bu jullee gee dafa war a fàttali bu nit deewee mu koy jullee dafa war a fàttali buy takk sëy dafa war a fàttali bu demee ngénte dafa war a fàttali quartier bi chaque jour ku dul ñëw jumaa sax jàkka ji sax imaam dafa war a dem sa kër ànd ak délégation ñëw ne la sërif asalaamaaleykum nga ne waaleykum salaam ñu ne yow ci koñ bi nga dëkk de te jullit nga waaw waaw dañ ñëwoon di la ziar si tey di la laaj lu tax doo ñëw ci jàkka ji bu imaam demee di nga julli si gee billaahi bu ko imaam defee timis timis gee di nga julli si waaye bu fekk imaam day toog rek ci këram jàkka ji kenn du ñëw imaam bu jëlee fukki nit ñi def porte à porte ci ñi dul ñëw jàkk bu bu waa ji waxee ngantam nag wax li ba pare imaam ne ko nag dañu laa bëggoon xamal ne jàkka ji ku ci dul julli si boo deewee kenn du la indi ci jàkka ji koñ bi moom bokkoo fi maadaama yow da nga ne jullit nga bokkoo ci jullit yi yëgal ne waa ju koñ bi nee nañu boo deewee kenn du ñëw booy ngénte kenn du ñëw booy takk kenn du ñëw loo fi am kenn du ñëw di nga ñëw wala doo ñëw dinañ ñëw wala duñ ñëw imagineel benn jullit dee ci koñ bi ñëpp waa koñ bi yëpp toog te morgue bi fu mu nekk waa këram bu koy ni ñu ne leen fan kii du fi dugg ndax mosu fi ñëw loolu la yonent bi alayhi salaam daan yaree saxaaba yi jàngeen histoire ñaari saxaaba yi yonent yi xam madina bu kenn wax ak ñoom yàlla moo ñu ko nettali mu ne wa daaqat alayhimul ardu bi ma rahabat li suuf si yaatu yaatu keroog bi saxaaba yooyu ne tëll kuñ ne assalaamu aleykum kooku ne suuf si dafa xat ci ñoom kon loolu mooy rôlu imaam lan mooy rôlu jàngalekatu alquran bi ci koñ bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xayrukum man taallama alqurana wa allama majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llah yatluna kitaba allah wa yatadarasuna minhu baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyathum alrahma wa xaffathum almalaika wa zakarahum allahu fi man indah rawahu muslim yow jàngalekati alxuraan bi xoolal lu rëy li nga am demal nga jël doomu jullit yi nga jàngal leen ñi am ak ñi amul ñi yor ak ñi yorul lii sa intérêt lii sa xéewal mooy buñ la fayul yàlla fay la nga jàngal leen diina yàlla bi jàngal leen alquran yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy kiy jàngale alquranu yàlla bi xayrukum la wax man man taallama alquran kafa laa wa allamahu jàngaleel téere yàlla bi ginnaaw ba nga ko jàngee loolu mooy sa njëriñ yonent bi nee na ay nit duñu booloo ci benn néeg ci néegi yàlla yi di jàng téere yàlla bi di ko jàngalante lu dul yàlla wàcce ci ñoom yërmande illa nazalat alayhim sakina yàlla wàcce ci ñoom dal wa xasiyahum rahma yërmaande muur leen wa xafathumul malaayika malaayika yi di leen bind benn par benn yàlla di leen tudd ci moom loolu yow fan ngay amee xéewal bu rëy boobu yow jàngalekat alxuraan bi dul nga jàngal nit ñi bu fekkee yow da ngaa jàng alxuraan ba jeexal nga mokkal juróom-ñaari riwaaya yépp waaye balaa ngay jàng rek ñu takk rajo ñu ne xaaral mu jàngal ñu tuuti ay aaya rek mu ñëw ne billahi min ashaytaani rajim kafa nga dem toogi loolu ban njëriñ la loolu taxul woon yonente bi di di jàng alxuraan du loolu dañu bëgg lii nga dugal ko ci dënd doomu jullit yi loolu la loolu lañ bëgg ci yow waaye booy xaar rek xaalis ndeysaan loolu moo tax xaalis yàq nan di xaar fay nga gis ay jullit yu bëgg a jàng alxuraan mënuñu te yow yaa ngi nii mën ngaa jàng alxuraan jàngaleel jullit yi jàngaleel ñëpp ku am jàngal ku ko amul jàngal ku ñëw ci yow ne la damaa bëgg jàng ne ko bismillah der baa ngoog toogal jeex na tiyaaba bi ngay am wallahi azim kenn amul tiyaab bu tol noonu dawrul muallim lan mooy rolu enseignant bi at taalim muhimmun muhimmatun sharifa hiya min wasaifi rasul sallallahu alayhi wa sallam rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim innaka anta alazizu alhakim lan mooy rôlu enseignant lan mooy rôlu ustaz ci koñ ustaz ustaz yajibu an yakuna daaya ustaz dafa war a nekk wootekat ci koñ liggéeyam liggéey bu rëy la kaanal kaada almuallim an yakuna tuuti ustaz nekk yonent tuuti rek mu egg martaba yonent allahu akbar kaada almuallim an yakuna qum lilmuallimi wa fihi tabjila kaada almuallimu an yakuna rasula way waykat yi ñoo wax loolu yow mi jàngale ñu tuddee la oustaz sa rôle mooy fexeel ba koñ bi nga jàngal ñëpp mais gis ngeen tey am nañ problème bu rëy bu rëy da ngay gis ay ustaas ci koñ duñ jàngale ku ñooñu ne ñu am aw ma jot wala tey nga gis ay ustaas yoo xam ne kaay defal ñu waxtaan aw ma jot wala da ngeen may fay damaa am benn groupe téléphoné leen allo ustaas Saïd lii lañ soxla woon mu defal ñu conférence ci waawoon ko waaw moom deux cent mille la way deux cent non wàññi ko deux cent allahu akbar ah ñun la fi teg ñun ñoo yor cachet bi quoi ñoo yor carnet bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw ndax rasul rasul sa sam dañ ko doon woo téléphone jot aboubacar mu ne leen dafa fatu fatu na du wax ak kenn tey fatu fatu sëriñ yi dañuy fatu fatu léegi dañuy ne sëñ bi fatu na fatu na déwén lay génnaat yée ku war a waar nit ñi war leen jàngal ñu ne déwén benn yoon ngeen koy gis ci année bi inna lillahi fu julli di jëm ku war a jiite julli di ñu ne benn yoon lañ lay gis ci année bi fu julli di jëm moo tax mi ngi nii lu ngeen gis ar rasul salaa salaam ndeysaan daana dem ci marché yi sax pour nit ñi gis ko fu nekk mu fay dem yonent daawa na daawa daawa ba daaway agresseur jaar na ci mbedd yowmul hijra muy dem gaa yi wër ko ba ci yàgg ñu egg ci place bi ñu ne ko yonent ii yoon bi day mooy tariqul muhaanay ni ku fi jaar ñaari band ñoo fi nekk dan lay toroxal mu ne leen ilayhima ursiltu ci ñoom ñaar la ma yàlla yónni ñaari agresseur yooyu ñoo tax yàlla yónni ma allahu akbar mu jaar ci yoon bi rek mu séen leen mu yuuxu leen te ngeen a ragal yàlla te ngeen a ragal yàlla ci jaami yàlla yi ñu ne ko ah luy loolu kuy yàlla mu commencé ak ñoom ñaar mu commencé musu ñoo dégg loolu kenn musu leen ko wax mu commencé ak ñoom commencé ak ñoom commencé ak ñoom gars yi daal di sànni jaas yi daal di koy topp ashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu annaka rasulullah ñun ñun yow buñ la gisoon ñun ñun ñu lii rek lañ doon seet ñun xamuñu lii musuñu ko dégg musuñu ko gis gis ngeen xool leen Abu Sar waa xifaar lan lan woon ay agresseur waa xifaar ku mus a jaar seen dëkk ñu agressé la wala Abu Sar moo dem génne leen ci yonent bi ne Abu Sar rubul islam keroog ba mu demee seen dëkk di buub leen di leen indi poussière bi dafa bëri ba yonent bi ne xifaarun xafara lahumullah waa xifaar a ngi nii di ñëw ñoom ñëpp yàlla baal na leen dëkk bi yëpp la bàyyiwul picc ñëpp a tuub loolu mooy liggéeyu lislaam loolu mooy liggéeyu ustaaz da nga am liggéey bu rëy yow ustaaz bi ci koñ bi lan mooy rôlu xalaatkat bi dañu tëb rôlu ustaaz lu bëri ndax dafa guddi dawrul mufakkir al islaami kiy xalaatal lislaam lan mooy xalaat lan mooy rôlam mooy al ihtimam bi qadaaya al umma dafa war a yittewoo xew-xew yii xew ci xeet wi ndax mu ciy génne jullit yi xew-xew bu xew mu xalaat càmbar dugg ci texte lislaam yi indi leen lu leen ciy génne mais xoolal tey ñoo ngi nii bu ñii wooree tey ñii woor suba ñii woor ginnaaw suba ñii ne man weer wi waa Mali woor nañ woor naa ñii ne waa Saudiya wooruñu wooruma ñii ne waa Pakistan woor nañ damay woor ku nekk ak sa kenn mënu cee génne ilaan yaris allahu al arda wa man alayha parce que amuñu ñu ci génne ndeysaan fekk waroon na am ci xeet wi ñoo xam ne problème yëpp ñooy xalaat ci texte lislaam yi dugg ci aaya yi dugg ci xadiis yi téere yi xalaat daal di indi ne lii la lii la ci lislaam ñépp jëfe ko mu daal di jeex waaye ñoom ñooy wiqaayatul umma min al askar al haddaama min al afkar al haddaama ñoom ñooy fexe ba xeet wi mën a aaru ci xalaat yu bon yu yàq dëkk bi wala ñu indi ko bu ko sànni ci jullit ñi waaw du ñu nelaw ñoom du ñu nelaw wala am nañu am na kilifa diine yoo xam ne xamuñu sax lu xew Sénégal te ay kilifa diine lañu événement 11 septembre am na ba mu am at am benn kilifa diine boo xam ne dafa gé man yëguma ko mosuma ko yëg événement 11 septembre laa wax de am na ba am at am kilifa diine boo xam ne ci Sénégal xaw mus ko yëg musul yëg événement bi ba mu am at mbokk yi mu fakkir am na dawr bu rëy a rëy dawrul mashru dawrul qaadi ñi ñëpp dañoo am ay rôle ndeysaan dawrul tabib dawrul ilaami ah dawrul muarrix dawrul siyaasi dawrul iqtisaadi dawrul adib hatta taajir lahu dawr fi lislaam ñii ñëpp ma doon wax am nañ ay dawr waaye heure bi moo ñu dul may ñu yeggali ko ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh